jërë ngeen jëf mbokk internet yi safoo di seetaan site bi di wasaare société ginnaaw ba ñu leen nuyoo ngeen taaxi lu ñu jukki leen li fi a ruusandi ci ay xibaar dañuy doxantu ba ca CM bu Bambilor 2 fekk fa mbir mu doy waar bi nga xamante ni moom moo fa daal di xew ñaari élèves yi nga xam ne ñoo doon xeex rek ba kenn ki daal di faat moroomam ki nga xam ne moom la ñu faat nag ay atam mu ngi toll ci 14 ans mu doon def classe bu quatrième gannaaw ba mu xeexee ak moroomam bile ba daal di koy won ginnaaw rek ci la moroom bi jël barre de fer rek daal di koy dóor ci bopp daanu rek ñu daal di ko yenn yóbbu ko ci hôpital Idrissa Pouye bu Grand Yoff waaye docteur yi def nañ seen kéemtulaay kattan waaye xale boobu rek dafa daal mujjee ñàkk bakkanam gannaaw ba ñu sukkandikoo ci famille bi xeex ci koñ bi waaye yaayu ki nga xam ne moo faat rek dafa doon tëkku ki nga xam ne moom la ñu faat ne ko di nga daje ak foo xam ne kenn fa nekk kon ñi nga xamante ni ñoo di famille bi nag bu ñu sukkandikoo ci ñoom nee nañu duñu bàyyi benn yoon muy sedd dinañu ko topp ba fu mbaxana doonee benn waaye laata loolu ñu ñaanal ki nga xam ne moo fi ko yàlla yërëm ko xare ko aljanna firdawsi fa mu jëm gënal ko fi mu jóge waaye ñun waa Wassare tamit dinañu wéyandi di topp li nga xam ne moo di information boobulee li fi jotaru seen dinañ leen ko jukkil jëre ngeen jëf ci topp bi ngeen ñuy topp ak taamu bi ngeen ñuy taamu ba beneen yoon incha allah ak yeneen i actualité